problème. Mhm. mooy yow bis bii nga bëgg a tabaski ci bis bii la bëgg tabaski. Mhm. man ci sama xam-xam bu gàtt si la tabaski bis bi nga bëgg tabaski ma tabaski bis bi mooy bëgg a tabaski ñu baalonte ak et on passe à autre chose quoi. Mhm. loolu man noonu la pour man parfois dañuy dañuy dañuy cest loo xam ne am na déjà yow. Euh, soo doon ut solution da ngay nan ngay résoudre sa problème bi bu ñu mën a déggoo ci benn mbir. Mhm. pour man loolu soo ko mënee am moo gën mais bu munta am nañ ko defee nañ ko war a defee et ñu bañ ko ñu bañ ko def problème. ñii tabaski bis bi tabaski bis bi ñu jël beneen bis def ko et puis ñu baalonte ak. Euh, mais lu defoon nga sa émission ba moo daaxoon nag. bien sûr fa laa njëkkee loolu d'accord naa ko <laughs> mais dama ne la bu demee ba amut. bu ñu ko def lu cest bu ñu ko jàppee division. Mhm. bu ñu ko jàppee euh, féewaloo wala dara nañ ko jàpp ne bon noonu la mbir yi demee et ku ci mhm. nekk la mu gëm ba jàpp ne bis boobu la war a la war a la war a la war tabaski. Mhm. ñu nangul ko ko ñu ku si nekk tabaski bis bi nga xam ne nii moom nga jàpp ne si nga war a jàll ci leneen mais bëgg ko jël bëgg ne non diw mi tout le temps yaa du problème quoi man du problème warut indi coow warut a indi réeroo na ku nekk tabaski bis bi ko doy. après ñu jàll ci leneen. après xam ko li ma la ñaan démb ko fàtte dégg incha allah <laughs> incha allah <laughs> <laughs> alors Momo balaa balaa balaa nuy yëkkati euh, bi la jotaay gis nga démba euh, li nga xam ni moo am fële ca ca ca Sénégal set muy euh, benn jàppante bu doxoon ci diggante Ameth Ndoye ak Nit Doff daanaka ñu si bëri na nañu li nga xam ne nag moo di boobale info te amaan mbir mi nu mu demee réellement jotu na ko jotu na ko laa di am. Mhm. ginnaaw bu nu sukkandikoo sunu concert boobu Lalla Rasoul nekk foofu ca mbir mi daanaka moom moo teewee mbir mi man li ma ci jot am yëpp daanaka ci ci ci moom laa koy jëlee dafa nekk benn mbir moo xam daanaka. la defu na ko ci affaire euh, maanaam dañ ko tey kii dafa ñëwoon def li nga xam nag moo di émission am génn tasante ki nga xam ne nag moo di Ameth Ndoye xëy na dafa ñëwoon pour am leneen mën wut foofu ci boobule boobu boobule site. Mhm. après nag si la ay kàddu euh, yigiti ba ba ba ay ay ay loxo daal di fay jug. Mhm. tay ji nan nga mën euh, jàngatee boobu boobule actualité aussi. waaw en tout cas. <laughs> en tout cas euh, loolu man ça arrive <laughs> mais moom ñoom ñaar dañoo jot kii nañu jot nañu. Ah, laalante ni daa mel ni ku dugg na de. est ah waaw yooyu moom lan laa ci lan lan lan laa ci lan laa ci wax léegi. <laughs> ni dof moom mbaa gaañu ko. <laughs> ni dof gaañu ko mbaa. waaye léegi lu tax ngay lu tax waxoo amendoo ndax gaañu ko. damay laajte rek. déedéet léegi man sérieux wuñ quoi man dama démb dama toog walla xaw ma xew ma dugg sur internet gis gars yi naan noo Ameth da kii euh, nit dof da ngaa weere quoi jigéen kenn du ko dóor après ma ne je me suis ma ne waa mais nit dof lan la di xeexal ay jigéen. Euh. après lay <laughs> soo xam ne kay Ameth Ndoye la doon xeexal ma ne noonu ñii sont pas sérieux quoi nañ <laughs> nañ bàyyi la ñuy def mais bon euh, pour wan lu ñu mën lu ñu mën a invité la. Mm-hmm. bon peut-être am na am na fu ñu yegg. parce que man am na lu Ameth Ndoye wax lu bëri loo xam ne àndu ànduma ci. Mhm. parce que moo tax euh, à chaque fois ñu war a moytu dugg si yenn yi c'est-à-dire. Euh, mën nga ñàkk d'accord ak ak nit man dama jàpp ne am na loo xam ne su Ousmane Sonko nekkoon sama baay soo ko waxee bu ñu jàkkaarloo day xaw day doy waar. cest à pour man su la neexee nga ne d'accord ma nit ak nit ci lii su la neexee nga ne d'accord ma ak li ñuy doxal ak yooyu quoi mais aller jusqu'à di yël yëkkati yenn kàddu yu ñaaw di ko teg ci dër nit je pense que c'est des choses à éviter parce que kàddu yu ñaaw yooyu moo mën a indi xeetu situation yii da ngay wax boo wax nit loo xamante ne nii bu ngeen jàkkaarloo day doy waar. j'espère que dégâts yi bëriwul rek euh, sant yàlla mais daal. <laughs> yow yow yow ay da ngay xam ba ay <laughs> nit dof tase nañ si dialogue national bi. nit dof eh, nit dof fa métti. <laughs> maa ngi seetaan keroog vidéo bi ko waaj naan nit dof maa ngi lay ziar mu naa ko delloo ziar ma nii que <laughs> nga xam ne kii bis bu ngàddee nit. <laughs> mais nag mënoon naa bàyyi Ameth nag. ah non ngay nan la tontoo waa ji. waa ji dafa nit dof maa ngi lay ziar mu ne ko delloo ziar ma nii nga xam ne kii moom. li muy eh. waxee nii bis bu lay rëq noonu la la rëqee. mais soo soo paree est-ce que doo doo message amit xool nu mu def. ah jar naa seeti de. Hmm. nañ na ko kii nañ ko seeti masawu ko xam naa du ñàkk ne mais bon nañ moytu yii quand même. mais xam nga cest ay xeex kenn du ko rafetlu ko hmm. ay dóorante mën nañ fa bañ a egg. Hmm. mais nañu moytu la ñu fay eggale mooy kàddu yenn xeetu kàddu yi parce que pour man. mën nañu bañ a déggoo mën nañu werante mhm. mais bu ñu dépassé wante ci ay wax quoi pour man loolu nañ ko éviter à chaque fois euh, yëkkati yenn kàddu yu ñagas di ko teg ci yenn nit am na kàddu gu mooy toog fii tudd nit wax ko ko mhm. su tasee si mbedd mi mhm. loolu kenn du kenn du ànd ci ay dóorante wala yooyu mais itam ci suñuy wax nañu ko am fu ñu koy ba du àgg fenn fi maa yow mën nañu am ci ay mbir ñu débat ko suñ paree ko si nekk dem mais am na kàddu goo xam ne sëñ bi su la ko waxee ëllëg day indi yeneen problème quoi nañ moytu yenn kàddu yu ñaaw ñuy teg ci kaw nit yi waaw waaw ñu def attention daal waaw Sénégal moom moom dé déglul Marissa moom. <laughs> xoolal kii naa hôpital la mujjee. nga ñii. ñi waaw waaw kii mi ni dof aka nit ku baax la billaahi nit dof. Mhm. nit ku nit ku baax ku am taalibe la. xam naa bu bu bu bu kiiwee rek ma affaire yi am na fu mu ko yegg quoi. Mhm. mais c' est de très calme ku baax ku ku. ku am taalibe ah. la ku am taalibe la xam naa ne daal mbir yi mën na ko am fu mu ko egg rek. Mhm. mais moom moom vraiment c' est pas quelqu' de de violent quoi. même si xam nga. am na xadar de nos ma ni yooyu moom <laughs> da koy def quoi. waaw mais ay xeex moom mën nañ fa bañ a yegg franchement. vraiment mi ngi doon mënoon nañ ko daal di éviter moom euh, moo euh, maa ngi lay jaajëfal lu baax a baax. kii jar na nag ko toggat ci télé bi di wax nga xam loo wax comme gars yi affaire yi ah, léegi yegg na ci ay. boxante oh, moom sa sa booy moom kuy wax waxal loo xam. bu nu génnee nanu wuti ci fu ñuy defi jee box. <laughs> bijou saal am na fii. <laughs> xam nga man déjà man man damaa tuuti neex naa xàmmee. waaw man su ma génnee su ma génnee rek ma eh, yow xàmmee naa la waxoon lii balaa boobu nan lañ defee ci suñu armation. en tout cas daal réew mi ku fi nekk de lox loo xam. ko d'accord nga ne ko d'accord. saa fii même boo waxee loo xam ne la fiy fekk. ah non loolu moom mu tane nag moom su boobaa moom ku nekk jël ay matukaayam. barki dem attaqué woon nañu fii palais de justice ah, na yoo xam ne bu si nit nag il ah, te bañ a tooñ bañ a tooñ daal moo loolu yëpp yaakaar naa nañ bañ a tooñ. c'est-à-dire buñ traité kenn. <laughs> góor jigéen bu ñu bu ñu yëkkati baat bu ñaaw di ko teg ci ci ci deru kenn. absolument ku d'accordul nag nga toog ne ko d'accord ma ak li nga wax ni amul lii moo am loolu du problème pour man loolu kenn du ci xeex. Mhm. d'accord ma ak kenn du ci xeex ak kenn. Mhm. mais nag saaga nit. xam nga tey euh, Bah Diakhaté tey bi ñu teg loxo. Ah. mais imagine la mu teg ci ci ci deru Ousmane Sonko tey un proche de Ousmane Sonko bu jàkkaaroon na moom est-ce que du dal ci kaw ah, et yooyu yëpp c'est des choses yi kii kii arrive mhm. nañ def attention ci li ñuy wax mën nga bañ a d'accord mën nga euh, wax li nga xalaat mën nga mën nga opposition sax mën naa am ci ay idées. Mhm. mais aller jusqu'à insulter des gens wala yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg ci seen kaw. Ah, euh, su amee rek yu mel nii ci lay mujjee te je pense que lu ñu mën a moytu la quoi. exactement lu war a mën a moytu la moom maa ngi lay jaajëfal lu baax a baax di am mbégte rek comme d'habitude tous les jours. Euh, di mhm. bokk bi la jotaay euh, saa su waxtu bi jotee merci beaucoup ci ci ci analyse yu pertinente yi nga xam ni euh, yaa ngi koy indi jëmale ko ci sujet d'actualité yu ñu daal nga xam ni yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy mhm. merci beaucoup. waaw mi ngi <laughs> man ñi su ma leen toppee duñ pare quoi maa ngi bu baax a baax. Mhm. internet yi ñu doon àndal depuis bi ñu dooree ak léegi comme ni ñu koy defee à chaque fois ci 13 digital di dellu si rek ci ci ci actualité. di si wax suñu xalaat c'est-à-dire amuñu monopole savoir. amuñu xam-xam bu kenn amut mais euh, li ñu li ñu xalaat la ñuy wax tout comme ki nekk ci commentaire bi ni muy waxee xalaatam ki toog ci këram am ci avion mais dañuy jël rek ñun li nga xam ne nii euh, moom lañ ci xalaat ak suñu xam-xam bu gàtt di ko jéem a partager ak euh, nit yi donc di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax way leen di ñu topp ci 313 digital. merci beaucoup Momo jaajafal nañ la bu baax a baax émissaire émissaire moom temps yi daf bàyyi. xaw ma nu mu demee noonu nag temps yi dafa raar de. nañ la bu baax a baax Salcham jaajëfal nañ la bu baax a baax Yassa Colina El Gradel KBS jaajëfal nan la bu